قالت على الآفاق واتصلت بشرى الهواتف في ميلاده الكرم خرت لمولده الأوثان وانبعثت ثواقب الشهب ترمي الجن بالرجم تزلزلت اسطوانات الملوك ككعبة ثلاثة أيام فلم تقم مالت منيلا مع الأركان أو سجد التعويل مستوجب التعويل محترم وقد توالت تفتلو تجلو واتصلت تجوكلو بشرى الهواتف دجلت هاتفي هاتف مولي وخ دو دگ جنن جس جمم باتن دو دگ ما تحت تلفون بمخوى عرب تدق هاتف wattasalat tañu jokkaloo bushara moom busharal hawaatif déglu bi aatif di xam ni gan gu gën a tedd dikk na ci àdduna mooy yonentu yàlla gën ji mu ndéef nee na loolu tegtaloo na alal afaaq ci gox yëpp goxi àdduna fi milaadihi ci guddig juddoom ga alkarami ga di borom tedd la xarrat rot na ci li mawlidihi ca guddi ga nee fi mawlidihi allaamu bi maanaa fii wanaadaa'u l-mawaazin al-qista li yawmi l-qiyaamati maanaam fii yawmi l-qiyaamati laam dana yor maanaam fii li mawlidihi ca biir guddi ju doom nga rot na ca al awsaanu xiram yi ñu daan jaamu min duunillah wa baasat daal di yebalu ca guddi ga sawaaqibu shuhbi way senji yu ci ay biddéew najmu saaqib mooy boo xam ne leer ga dafa tar ne ñu nirale ko lu tax ñu di ko saqib min saqaba mooy na na saqaba ak naqaba yëpp dana firi bind na maanaam saqaba euh, bëtt na day firi bënn na biddéew bu senj ci lëndam day mel na ka xeej bu ñu jam ci yaram wu ñuul kukk ba mu fël mooy najmu saqib maanaam bu senj ashuhb sawaqibu shuhbi maanaam way senj biddéew yi lay niraleeg ay jum say safar parmi muy sanni moom bidde yooyu al jinna jinne ye bir rujumi ci ay saan maanaam ay safara yu ñuy sànni junni ye mu di leen lakk ci goxi asamaan ndax yàlla may na jinne lu mu mayul nit yéeg dem ci kaw nit mënu ko jinne yi nag <clears throat> kama qaala ahlu siira nee ñu dañu daan tungoo mënte ba dem goxi asamaan yàlla moo ko seede ci sóoratul jin jinne yooyu nettali naan ba fa mbir ma dalee ba tiit nettali nag yàlla nettali at ko yonent bi inna kunna naqudu minha maqaida li sam foofee ca asamaa ya dan ca bu jëkk dan fa daan toog ay paraas toogukaay di déglu di lu muy déglu nee na sekkare yi malaayika yi di waxtaane li yàlla nar a def ci nguuram gi malaay yi di ko doxal comme fa bureau yu mag ya nekk nga xam ne li ñuy war a doxal ci réew mi foofa lañ koy waxtaanee am na ñu ñu tànn ci nguur gi ñu di ko waxtaane malaaka yi dafa am ñu borom bi tànn yoo xam ne am na fu ñuy waxtaanee di se di jokkalante digalal borom bi ku nekk la mu war a liggéey jinne daan ko déglu ji nag ah ñu ne waaye day fa man yastami'i al-aana yajid lahu shihaban rasada léegi de kenn mënatu faa déglu ku fa dem di déglu léegi fekk fa ay ay jum shihab bi yi maanaam safara yi ñu jafale ci biddéew yi di leen ko lakk am ci ñoo xam ne dañuy alku ñii lakk laggi des fi suuf dootuñu mën a am doole ya ñu amoon loolu nee nañu sax mooy nekk li ñu wax wala fi naan ay njuuma ñu nekk di wala ñu ci kaw suuf si di dofloo nit ñeeg yu kenn xamul am nañ ko tazalzalat ustuwaanaatul muluki tazalzalat yëngatu na ustuwaanaatul muluki piyoy buur yëpp ah, seen piyoy diwaan yi ñu daan taxawal tazalzalat ustuwaanaatul muluki ustuwaanaatu mooy amidatu ci jàkk ay piye ka kaabatin comme kaaba gaat yëngatu na salaasata ayaamin ñetti fan falam taqum dalul neewul tekk benn yoon ñetti fan di yëngatu bi idnillah maalak jàng na kaaba ga mamiilan ak jàng masdar la ma al arkaani ànd ak ponk yëpp koñ aw sajadat ba sujjoot aw sajadat تعظيم مستوجب التعظيم جردكم مجلكي يلوككم مجل محترمين كدكنيو أرمال وفي الولادة وفي الولادة منهم جهنة فلقت والانفلاق عجاب عند قومهم وقد هوت شرفات البيت شرفات البيت ولا شرفات ناورنا دغا شرفات نعم لأنه فعلة بالضم فيجوز إتباع ولا فتح للتخفيف فتقول شرفات دنجا قربات قربات وقد وانهدم الإيوان والماء مثل النار في الزرم وفي الولادة تجدد منه تيانا وقتها aljafnatu bagaan ga ndab bu réy ba in falaqat xar na fekk na quraysh am seen aaday ndono am seen ndab loo xam ne xam naa loolu yëfi xeram la daal wala seen aqaayit lay ndab loo xam ne lu rëy la bu doom juddu waxtu guddi dañu ko ci kupp bu dee bëccëg duñ ko def waaye bu dee bëccëg moom eh, bàyyi ko noonu mu tëdd ci lal bi xëy na lëf la gis ni wala ci seeni zaamaat nangam ak nangam xëy na ñu di ko rawalee ndab li daal dañu ko koy këpp ba suba kenn du ko gis bu subaa ñu door ko kuppi xool moom nag ñu indi ndab la guddeem ga dañ ko see nee këpp ñu yeewu fekk mu nekk yaari gaal xotti tos xott bu ne jëm àll ñu yéemu nag moo tax mu ni intalaqat aljafnatu nee na ndab bu rëy booba wolof nag bagaan la ko daan wax ndax bagaan yi nu xam ndab bu rëy boo xam ne soo rootee paanu ndox def ca mu dugg mu sotti ko ca te kat garab la law bi yee ko wet ah yéen yi ngeen xam ci ndawu law ba yu tuuti yi la waaye bi ci gën a rëy bagaan la daan tudd paanu ndox daal mu lay à peu près infalaqat xar na fi lilaadati ca juddu ga wala infilaqu xarug ndab loolu day ujaabun kéemaan la lool inda qawmihim fa seen nit ñi qurayshia ujaab nag wasnu fuaal xam nga mënoo seen na ni ajibun waaye ujaabun ablagu min ajibin ka tuwaal ah rajulun tawilun mu rajulun gën a foor njool ni siru wa hawat daanu shurafaatul bayti shurafaati néeg ba shurafaat jamu shurfatin ci tabax ca boo demee ba taxawaay bi mat ca kaw ba ñu xadd ba noppi am na ay jekki-jekkal yoo xam ne day def mu jobb yu jóg taxaw léeg mu wàcc léeg mu yéeg xam ngeen loolu danañ ko def ci kaw miiru tabax loolu mooy ay shurafaat nee na rot na ca walhadama mabbu al toj al iwaanu iwaanu kisra iwaan ala wasni diwaan mooy seenu assemblée fi ñu daan daje di sotteente xel ci mbiru nguur ga mu doonoon tabax boo xam ni ñoom it doom da daan judd fekk ko ay maamam defoon ko fa xamul sax kañ lañu ko def dëgëroon na dëgër goo xam ni ku ko mës defe ni saa bu taxaw day moo ko fay jële waaye àddina du fi jóge moom iwaan boobu dëgër ga waxoon nañu ci mos ci am fu ñu jaar ak xisa Mansuurul Abbas yi amir ci booru Abbas yi nga xam ne ñoo jëkk ci xilaaf ak bani Abbas ku am doole la woon tey jàmbaare moo sancoon Bagdad moo moo toxaloon capital bi ba nguuru Abbas ya taxawee jële ko ci Dimashq Sham gi nga xam ni moo doon qaidatu nguuru banu umayata ñooñu di seeni noon ñu xam ne bàyyi fa e, capital bi ci nguur guy door a taxaw te réew ma ñëpp seen xol yëpp a ngi ànd ak banu umaya seeni noon loolu moom te foofay capital ba mën na indi rëng-rëng ci réew yor ca dolli nag ay wa Cham da di peggu mamlaka islamiya nag itam ndaxte bilaadu Room yàlla taqalool te foofa du woon booba réewi lislaam mu gis ni bokk na ci xasmu daal doxal ko indi ko ci digg moomeelu lislaam bi su ko indee iraq mu ngi ci digg bi la ko fa tàmli ba tàmbalee ba afrique la ko fa tàmbalee jëm iran ba iran jeex waaw kooku mu ngi ci digg kapit réew mi ci xelum Mansour mu def ko fa di jàmbaar la jekki ba tàng nag mu jóg ne daal mandargam kéefar mii ci bilaadu faris du ko fi bàyyi ndax comme réewu jullit la léegi dootu fa desal ay desit ci kéefar yoo xam ni dañu leen koy nawe ni da koy toji kenn waaye nag bu am xel ni ko ëpp naa def di xalifa bu ko def eh, ndax damay ragal eh, bu ko def daal da ci la nga ci yàq ci alal da ko jar mu ne ko laa bu dama def daal di ca dem ànd ak i ñu sonn ca lool dépassé ca alal yu bare bare bare copp tuuti lañu ca coppati loo xam ne jaru ko mu jekki-jekki xam ne duñu ah bàyyi leen nan ko fi bàyyi ba mu bàyyee dikk nag kooka ko nag ëpp naa def léegi noo mën a def danga ko toj ah, ndax li ma doon léegi loo mën a def nanga ko fi jëlee ndax lu ko muy nit ñi ni gis nga kii de moroomum buuram tabax na fi moom mu dikk toj ga dong mënu ko waxuma laa tabax mu ni loolu laa lay bañal nag ah waaye faaleetu ko mu ni ko ndokk wacci ko fa xanaa jamono ji yàgg bawul dara rek yaakaaruma ni ku fa dem tey da nga gis desit yow dégguma ca dara waaye seeneetuma ko de ah, ndax it ah euh, matériel yi am léegi amuloon boobu tabax bu teet toj amul ci matériel yi dana bu ñu ko fa fekkee mu jóge fi dégg nga waqad hawat بعضنا شرفات البيت وانهدم النبأ الإيواني هودع ننفذه يتشكو شرفات البيت وانهدم التجنة الإيوان إيوان كسرى والماء لكم فارس ما تمو بحيرة ساوة نتلنكو تشي بردو مثل النار كم سين سفر وجدان جاملة في الزرم تدقم مدق سفر وفين ضخم jàngoon nañ ko ci burdu ah, ba mu naan ka anna bil maai ma bin ka anna bin naari ma bil maai min balalin xusnan wa bil maai ma bin naari min barami te ba mu ko defee te mu tëg dem di attewaat kooku mooy mooba moobasaan ra'a dafa génte gis xaabu faaris bu mag boobu al abala ay gëleem qaidatan yu wanat xaylan ay fas iraaban yu di fasi iraab mu fasi naaru góor tajoo bu muy dog muy jàll dëj la jóge ci réewu ba dugg réewu iran bil xadami ànd ak gaawaay ak yeneen i yu mu tiit ni lii nag kat na waar man def gëleem yi ma gis ñu womat ay fasi naaru góor ak ay góor yu dul jeex jàll eh, dëj la te mooy géeju iraq guréy googu nga xam ni dex la goo xam ni moo moo séparé réew arab ak ba mu ko laajee ba mu ko ba mu ca jaaxle ba jaaxle mu laaj ko nag ah ñu ni ko nag kooku day li ci pexe mooy seeti waa ji ñuy wax Satih Satih nag boobu tànk defe ci yaman la war a nekk wala mu ne ko nag xam naa bu bu fekkul booba boor ci yaman la nekk ca la cosaanu nag moom Satih xamkat la boo xam ni yàlla bind yàlla bindul ko ay yax ci yaramam yàpp dong la xanaa loxo yi ak kaangum bopp bi yooyu moo ci am yax nee nañ bu ñu ko mosee di déplacer dañ koy taxañ ni ñuy taxañe ak basam mu nooy nepp yàlla defal ko muy li ñuy wax ko yaa bopp di xam yoo xam ni ku gént bu dikkee bu la ko waxee dara du ca des mu dal di jël nag waa ji ñu wax Abdul Masih yebal ko ca ni ko ni ko wax ko gént gi daal ni ko su demee mu laajal ko ko daal ndax jaaxle na ci bismillah mu ñu yónni woon nag ba mu jëmee ci ci Satuux Satuux mu ngi bokk Yaman Abdul Masiix nag buuru Faris yabal ko ni ko laajal ma gént koobu mu ngay murtagis la woon rajas dafa am arab yu ko mëne woon yoo xam ne ni ñi waxtaane rek mën nañ ko ko defe li ñu bëgg wax kooku ne nag mu nga naan asamm an yasmau xitruuful yaman an fad an fad fazlan bihi shaul ana يا فاصل الخطة أعيت من ومن أتاك شيخ الحي من آل السنة رسول قود العرب يسري بالوسن للوسن وأنه من آل ذئب بن عجل أبواب فضفاض الرداء والبدن تجوب به الأرض بالأرض به الأرض شزن ترفع بي وجنا وتهوي بي وجن حتى أتى عار الجآج والقطن لا يرهب الرعد ولا ريب سنن تلف في الريح تلفه في الريح بغاء الدمن كأنما حفحف من حدما شكن فن خمول لا إله إلا الله لغة بجاه أصم أم يسمعوا غطريف اليمن مكلف اليمن جي غطريف سانغ بو مك ندخ ما نجي دغ ولا دفا تخ انفاد فسلمنا به شاول انا انفاد ولا دفا دو فسلمنا به دال بكو يوب شاول انا ما انا خو خو ده انا الملسيتا يا فاصل القطة يوم يخاني يادي يادي أراسي المشكل بنا خطة الأمر العظيم فصل الأمر maana arase na ko atte na ko mun faslu bi maana alqat ya fasil xutbati yow mi arase problème boo xam ayat man wa man tene ku ne he man yuqalu lahu fulan wa man yuqalu lahu fulan wa man yuqalu tene ñëpp moo tax mu ne rek day nga arab ayat man wa man day loo man bi li tahwil man koo xam ne bañ a wax si xamul nu war toll ataaka cheikhul xayi min aali sanan maanaa magum dëkk ba dikkal na la yónni nañ ko mu ngi bokk ci aali sanan rasulu qaylil urbi yasri lil wasan mooy ki nga xam ne buuru arab bi moom la yónni ndax buuru farisi ko yónni woon qayl mooy maliku doonal malikil azam lu tax nag mu ne qaylil urbi dafa am ci pays bilaadi arab yoo xam faris ñoo ko moomoon وسري ميرنان للوسن وسن دم وسن دم نسي جبلو صاحب الوسن تموي سطيح لكي جب مرنان جمسي جيو برم نلوي للا مدف كل اسم ظاهر دون تفننا وأنه من آل ذئب بن عجم للا مدف الالتفات وقل أم أمنتك خنا دف بطن مو شيخ الحيدي من شيخ الحيدي بي دمان تسنى بط أنه جبلو لكم من واجب من سطيح حسبه من آل من من آل ذئب بن عجم mu bokk ci al Zéb ibn Ajam turu nit la ak baayam arab dañu tudd Zéb di tudd Asad ku ko jublu si annahu abyadu aji weex mooy moom ndaw li fadfaadu ridaai wal badan maanaa ku mat rida ak yaram maanaa ridaaw arab dañu ko jëfandikoo tabeeg alal day day sàng der day sàng urb ni ki riba u di sàng jismu moo tax dana wax ni eh, nañ ko waxee ko def shahid ci ci bayaan bi dañ ko dégg ni xamru ribai ida tabassama daaxikan xaliqat li dixkatihi riqaabu lmaali بعض الرداء والبدن تجوب ذي الأرض على باطن شنن نانا تجوب بن الدق الأرض السوسي دي أبنن على باطن ناقة جو تنقل جنجة شسنة بو خمي gaawna walla alan batun shasan شسن علامدات شسن تمشي نشاط من نشاطها على جانب تورتين بي تقميد دخدي والشسن النشاط معناها بوخاني بوخني علامدات شسن بوخاني صور ندى ترفع بي وجنا وتهوي بي وجن حتى أتى آر الجآجي والقطن بمدك الكوخم آر الجآجي جؤجؤ الصدر جآج جمع جؤجؤ آه، لا يرهب الرعد ولا ريب الزمن من برد الدم برد الخوخو دم تلفه في الريح بوغاء الدم من انجلو بوغاء الدمن من poussière suuf bu nooy bi ci seen yëg yooyu nee na mm, talufuhu fi riixi koy taxañ ci ngelaw li maanaam ngelaw li bu dikkee jël pënd boo xaa maanaam suuf bu nooy bi ci seen yëg yooyu pënd ba suddi nee na day dama ci taxañ ka annama xusxifa min xirnay sakan mu ngi mel ni ñu ko ci ñaari boori doj montagne bi ñu wax sakan kenn xamul seen abdul masih di wax ba ko fa buuru faris ba yónnee muy laaj ci géntam gi satih arab du xanaa ñoom ñoo fi gën a mën a takk la mu ko wax ca gént ga ba mu ko ko firilee mu ni ko na ngeen xam ne in tilaawatu qad baqat wa qad zaharat walil hirawatu waylal furshi wa sham سيملكون يد منهم أخي ملكا مثل الشرافات لم يخطئ من الكلام كلمة إن التلاوة إن حرف كلمة تلاوة مبتدا إن التلاوة سفك أم جنگ قد بقت خمنا بقى خمغني أكثر الكلام وبقى فك وعك بقى موي أكثر الكلام قال شاعر ولست في الحي بقاق المنزل مناما ci gàdd gi duma doon waxkatu kër eh, ndax loolu yëfu yaafus la boo demee ca guerre ba doo attana àddu boo dikkee ci kër gi bëgg a rey nit ñeeg coow mu ni man walas walastu fi lxayi buqaaqal manzili baqak akthar al kalaam inni tilaawatu su fekkee njàngum alquran qad baqat xumb na wa qad zahara te feeñ waalil hiraawati borom nguur wi wetu nguur wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mosee di dox day yor aw wet su demee bëgg a julli ñu samp wetu anasa bi mu julli jëm ci def ko saat suturam moom ko bu fekkee ni njàng xundum te borom wet woo daal defe feeñ kon da woy leen fursi ngalla waa faris wa chameeb waa cham kon dañu xam ni nguuru cham euh, te room ñoo moomoon ak furs te faris ñoo ko euh, moomoon wilaadu euh, iran booba nee na kon ngalla ñoom seen bi ko dana mooy dana ala lughati akaloli lbaraqi sayandiku yadum waaw ak ñun du damir xarfun la euh, ci lugha bi nga xam ne arab tànn ko danaan jaa u rijaalu jaa rijaalu moo baax waaw wi du damir sayandiku dana moom yadun fukk ak ñeent minhum ci ñoom faris mi ngeen xam ni malikan ci buur yaa ak yow sama mbokk na nga xam ne lu ngeen dese fukki buur ak ñeent day moo leen dese ci nguur buur boo xam ne kenn xamul ñaata at la woon ci seeni maam waaye nee na ko fukki buur ak ñeent ngeen dese fukki buur ñeent yooyu yëpp kat euh, ci ñaata at la yëpp dee euh, fukki yëpp daal ci biir ñaata at at yu néew laa tëkkatul adat ba ñeent daal la ca des xaw yàgg la tuuti ba Omar ibnul Xataab fekk leen fekk fi ka fa mujjoon waaw waaye fukk ya dañoo tegaloo yëpp te ñeent daal ci seen nit moo dajeeg lislaam taxaw ba yonent bëgg sallallahu alayhi wa sallam ak Abu Bakar radiyallahu anhu ñëpp jóge nañu fi ci xilaaf ak Omar moom nag moo raatale la desoon ci nguuru Faris lépp fukki ya dañoo gaaw dee rek mënu nañ ñu fukki buur ak ñeentay moom ci ñoo misala surafaat yi kenn fukki surafaat ak ñeent yi daanu woon na ngeen xam ne fukki buur ak ñeent mooy def lan waxte mooy minal kalimi wax euh, shurafaat yi buñ koona yaddun minhum axi malikan misle shurafaati lam yoxti min al kalim sayam dana moom daal yaddun fukk ak ñeent minhum ci ñoom buuru faris malikan ci buur yaa axi yow sama mbokk nee na misla shurafaat yi kem adadu shurafaat yi rotoon fukk ak ñeent nee na satix day firi géntam démb lam waxti mooyut joomut mu nel kalimi ca wax dama ko noonu la amee fukki buur ak ñeent la ñu dese woon fukki yëpp dañoo tegaloo ñeent ya nag ñoo fi des ba ci xilaafa Umar ibnul Xattaab la ñu door seen nguur jeex Usmaan wala Usmaan wala Umar عثمان لو ها كون بدي سيدي ولا وايدي وفارس أمركم مكة نعم حمل العصا سنة سنة للأنبياء نعم كن حاملا يبنني من تنأ من شحمي يعني تبع عليه الصلاة والسلام ورمني أنا زان بدك ودان ير وكان ينصب أمامه إذا كان يصلي فكان تركز تركز أمامه su bëggee julli ñu daal di ko soññi fi suuf mu taxaw mu def ko sutura xamlul asa wa rawat sunna la lil ambiyaa yi wa rawat bu ci xadis bi ni yor eh, eh, yet sunna la su yonent yi maanaam yonent yi ko daan def mooy sunna la lil ambiyaa maan am na nag ci ulamaa muasirin ci warante jublu bi nii nekk na sunna boo xam ni bu ñu santaane bu ñuy war a def mooy kon defe ni yonente yi la de yonente yi aada wanañ ko te loolu danañu ni nangam sunnatu sunnatul bilaad bi maana seeni defin la ndax sunnatu moom moo di ab tariqatu rek amaa turu istilaahiyaam bi nga xam ni ci eh, usulu diinul islaam ñuy wax fard mooy lu yàlla digle ku ko deful ñu bëggal ku ko def ñu yool sunna mooy loo xam ni yonent bi moo ko daan dëkkee def di ko feeñal ci mbooloo walam yadullu walam yadulla dalilun ala wujubiha loolu kooku istilaax la sunnatun lil anbiyai maan ku nekkan xaamilan di yore wet yëpp na nii min yow mi am ñeen fukki at soo ko xasee def tan anga sore min saxamin ci réylu بإثر خمسين عام الفيل قد طلعت سعد الصعود لي سعد الظلمي طلعت فنكنا سعد السعودي تخي تخي دنجا تخي تخي فينا دنجا بإثر خمسين تجنو جروم فكفن عمل فيل تأتمنى يدك ومك ba bis boobu jeexee juróom fukki طلعت طلعت فرنك صعب السعودي معنا جنت بنا خاني موي تخك تخي لذي سعد النيار نك كوي دران تخك والا بندل تخي لو دران تخي دي أما كوي والا بندل شقا شقا لو دران مفين بجاف بلاني چه لندن بير لندني بديو تاريا بجاكت جمع بجيتين وظلم جمع ظلمتين فالإضافة للتفسير وكان ميلاده ميلاد إخوته وذاك عند طلوع القفر كان نمي وكان مثل ميلاده جدوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون ميلاد إخوته الأنبياء كن وقت مكين تنيدان جدو وذاك لولو وقت وو جدو تشلوين تيدان جدو موي عند طلوع القفر ففق بدو بنيخ ذاك لولو كان نتنا نمي دان كو أسكن عند طلوع الغفر ففيق بدو بن وخفر من بعد عشرين للنيسان جاء لنا سعد وفوز وغم غير خير مغتنم من بعد عشرين تجنا نار فكفا يوخانوين للنيسان تيور أفريل جاء لدك لنا نيان سعد أكتخي موي تشالنجو تشادنا وفوز عندنا وغنم أكم غير مغتنم من بوغان موي ننجبكم من طرفتو وقد مضى لأنو شروان قل ولد في حفظ الاسكن في حفظ في حفظ الاسكندر ثاني أخي الحرب